juróom-ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen ba noppi li a ci bopp xibaar yi tey ci alxamis dinañ ko tàmbalee ci marché central au poisson bi nekkee fii ci Pikine ci Ndakaaru ñii di mareyeur yi ànd nañu ak délégué fas yéene banque seen loxo diiru ñetti fan suba ci àjjuma ji la ñu koy tàmbali ko waral nag seen marché pëcc xoogaa leen jaaxal xamatuñu marché jaay jën la wala lu jëm ci wàllu ndugg wala sax yeneen yoo xam ne ñu ngi ko ba ci ay fëgg jaay moo tax ak ca eh, diwaanu campement ngi xoof foofa nag askan wa fa nekk mat nañu juróomi téeméeri doomi ma ñu fay yeewoo dakkal nañu liggéey ba nga xam ne ñu ngi ko fay def ci autoroute boobee jëm si Sindia eh, jóge Mbour eh, léeg lu xam lu ko waral nag seen koppar la ñu bëgg muy ndàmpaay ñu fay leen ko lu ko mooy ñeenti kilomètres ya ñu fa tàmbali dara du ca dolleeku bu ñu sukkandikoo ci cox na mu fa féetee wàcc ci mbedd mi ndax jël ay matuwaay yoo xam ne nag nguur gi ñu ngi koy soññ ngir mu dakkal ko muy lu jëm ci tefes yi nga xam ne moo nekkee fii ci Ndakaaru Xalifa Sall mi meeru naka ni nguur gi fi nekk caxat caxatee nañu ko jaay nañu ko ba mu jeex tàkk ba askan wi amuñu fenn fu ñu nooyee ci lu jëm ci wàllu géej geek bakkene gi dañ ko teewlu moom it ci biir xibaar yeeg ndaje yi doon amal ak taskatu xibaar dañ ko jeexalee xibaar bitim réew Fatmata Sey moo koy yaatal ci kanam tuuti ñu faram fàccee leen ak jàmm ci xibaar yi ci yaatal dañu koy tàmbalee ca Pikine marché central au poisson ba fa nekk délégué yi ànd ak mareyeur yi fa yéene dakkal liggéey bi diirub ñetti fan li ko waral nag dañu ni seen marché bi xamatuñu jaay jën moo ko yëkkati wala jaay ndugg wala sax fëgg jaay pëcc ba jéggi na dayoo teg ci calte ga kenn mënatu koo wax kenn ci ña fay xëy moor ak Fall lay wuyoo ak suñu naataangoo ba ñu fa demaloon Théodore Sebedo. Euh, dañu fi am euh, marché bi li fi nekk doy na waar jéggi na dayo comme salte comme xat comme li fi bokkul te nekk fi loolu yëpp moo fi nekk loo xamante lu ñu naqaril te bëgg ñu jóg fi pendant huit mois nag ñoo ngi koy dox li ñu fas yéene def vendredi samedi dimanche dañuy grève banque suñuy loxo grève nag waxuñu dañuy banque suñuy loxo léegi ñoo doon jaayatuñu jën ñun léegi jaayatuñu jën jaayatuñu dara dañuy banque ba kees ba keroog solution di am solution mooy lenn marché bi li fi nekk te bokku fi première chose na ku ci jën lépp na dégagé wu. ci topp mooy saltama li fi nekk salte ndox mi foo toll ndox foo toll ay cabinet fosse bi di buuj yooyu dañu sonal te li tax loolu sonal na du question ni ñun ñi nekk ci marché bi rek moom la ñuy gën a sonal mais wóorul sax ci nit lekk ko jën bi fiy nekk waaw benn client nag ñëwatul li ñuy wax noonu nekkul ci loo xamante ni lu ñuy sos la lu ñuy fàng la lu ñu fàng nag kenn du ko jeex li ñuy wax ñëpp ko xam mais ku fi ñëw amoo parking boo gaare parce que marché bi xat na xataay boo xamante ni te li fi bokk rek ko xatal loolu nag lañ bëgg mu dégagé wu. fu waay neex teg kees jaay lujum yi ci marché bi fëgg jaay ay bool ay kaas mais loolu bokkul ci marché poisson. poisson ñoom bu fi ñëw dañ ko vendredi moom dañ koy tëj. samedi ak dimanche dañuy taxaw duñu jaay dara jaay ñu dara. Maam Góor Fall la ñu doon teewlu ci marché central au poisson bu Pikine ngir nag seen ñetti fan yi ñu bëgg a banque seeni i loxo ngir marché baa calte gu jéggi dayoo ga ñu fa nekke ak njaayu fëgg jaay ma ba ci ay ndugg ñu ni xamuñu ndax jaay jën moo ko tax a jóg beneen jafe ci beneen gox muy campement ngi xo foofa mat nañu juróomi téeméer doomi aadama di laaj seen dàmpaay ci autoroute ba nga xam ne ñu ngi ko fay def mu jóge Sindia wutali Mbour ñeenti kilomètres la ñu fa liggéeyagun askan wa dakkal nañu liggéey ba ni ñeenti kilomètres dara du ci dolli ko feek joxuñu leen seeni i koppar Thierno askan wi yeewoo ci diwaanu campement Ngeekoox te autoroute à bi jóge Sinja jëm Mbuur nangu seeni suuf gàllankooral nañu liggéey bi di laaj ñu fay leen seeni ndàmpaay ba mu mot sëkk. dañu ne bala ñu fi tracé dara dañ leen di fay ba pare ñëw nañu fekk ñu liggéey fi 4 kilomètres et poussière ah moo taxoon ñu ñëwoon fi arrêté leen deuxième fois bi démb lañ fi ñëw. pour commencé waat seen travaux ñu arrêté leen ñu ñëw fi pour arrêté leen ñu téye seen liggéey ba kañ ñuy fay nga ko wax ba pare. bu ñu leen fayee ba pare nag bu leen neexee commencé liggéey liggéey bi dañ koy lakkal bis ni ki tey kenn dootu fi liggéey tant que fay ñu nit ñi. kooku moom suñu bakkan lañ si teg ah ñun doomi nga ko wax yëpp du ah am tey du am ëllëg ah nañu ëpp nañu cinq cent personnes ëpp na cinq cent personnes cinq cent personnes yooyu nag mooy nga ko wax nga nga paru soman ñëpp am nañ fiy ñëpp fi amee suuf nag ñëpp na ñu ngi laaj seen yelleef bi nga xamante ne moom lañ leen di jox pour ñu jox leen ko mu jeex jàmm am ñu continuer taxawu yi fii moom kenn du fi liggéey kenn du fi liggéey ñu ne nit ñi ba pare. ci gis-gisu askan wi benn liggéey dootul dooraat ci autoroute à péage boobu fi ak fexe wu ñu bëgg seen koppar yi dugg seeni poos. Malicounda fay nañ leen ba pare lan moo tax ñu mën a fay Malicounda te fay ñu ko am mànge ko. caafure fay nañ leen deux ans soog a ñëw commencé liggéey. xasab fay nañ leen ñaari at soo ko ñëw commencé liggéey nga ko wax ñu fay ñu leen benn un franc bu ko ko lu kooku luñ ko nangu tey te luñ ko nangu ëllëg. lépp lu ñu waxoon génn nañ ci ñun gisuñu kenn dañu jékki-jékki rek ñu ne Sinwaa yaa ngi liggéey léegi nag li ma leen di xamal mooy lenn li ma leen waxoon fii rek tant que Sinwaa lañ fi soxlawul tant que Sinwaa lañ fi soxlawul lépp lañ dakkal lépp lañ arrêté gaa yi doon xëy ñu ngi nii taxaw mais dañu leen a arrêté kenn dootu fi tag tànkam tànk fayuñu bu yeboo nax ñu jëmale ko fii boo déwén mais tant que Sinwaa dootu fi jam fii kenn dootu fi taxaw. askan wi teg nañ ci ñaaw lu tam li ñuy yore doxalinu autoroute à péage bi ñàkk sa monté ak diggé yi ñu xaati monté woon ak ñoom. dañoo bëgg bu fekkee dañ ne décret bi presse bu ngi si président na ko ab na ko na ko président signé ñu fay na ko ab na ko Macky Sall signé ñu fay nit ñi Macky Sall bu bëggee jàmm ci réew mi na signé décret bi gars yi fay ñu. ñu mën a liggéey seen liggéey sinon Ngékos nañ fi am problème bu jeex. ba ñu fi njëkkee nekk di liggéey fële lañ leen baare ñu wax leen li ñu wax li leen wax ñu wax leen ko ba pare ñu ne arrêté nañ ñu dem lépp lu ñu waxante woon ak ñoom lépp lañ dindi ba set wecc lépp lañ dindi ñu commencé waat ñëw di bëgg a liggéey te ñun amuñu lu dul suuf si suuf si rek lañ fi am. ci gis-gisu kenn ku xelam màcc ci wàllu liggéey yoon gàllankoor yu bari yi ku moyul dana tardel njeexitalu liggéey bi mbuur Thierno Daaf radio télévision dañuy dellu si Ndakaaru amaloon na ndaje tey ak taskatu xibaar yi muy xalifa Sall meeru Dakar nee lu jëm eh, ci wàllu tefes yi senegal Sénégal jaay na ko ñu bëgg kër yu bakkene wala borom hôtel yi ba mu jeex tàkk tefes yi benn askan mëntu koo jëfandikoo ci jamono ji lu ñu war a dakkal la ay kàddoom xoxandong moo ko indi. nekk ci ñun ku nekk ci ñun da léegi defe naa ne di nga gis waa Dakar yoo xam ne kenn mënatul gis géej ñaari phénomène ñoo ko tax bu njëkk bi mooy liñ tudde érosion côtière changement climatique yi tax na ba euh, ndox mi lekk nu bari ci géej li ca desas néew ñu def ko ay hôtel ak i infrastructure touristique te hôtel boo ci jox taatu géej defal ko boppam ba tax na Dakar présente cette curiosité que Dakar mënatuñ dem euh, fii à part plongeoir su ngeen jëlee corniche ouest à part plongeoir ma ne kenn mënatul dem géej rudee ñaay ci jafe-jafe la ne bu ñu moyewul bis dina ñëw kenn dootu ko gisati la ko waral nag jafe-jafe yu bari ak suuf sa na muy nangoo dëkk ba tax na askan wa ñëpp àndandoo doon benn te ndimbal la ñu bëgg lu ko moy seen gàllankoor googee ci environnement kanam la jëm ka ñu fay teewlu ñenn ci askan wi la teew doo seme doo xëyaloon ñu fa. moo xam ñi nga xamante ne dañu yor seen garage ñëw indi seen oto remblayer zone bi def ko fi moo xam ne ñi nga xamante ne aussi ay industriel lañ dañu bëgg defar ay usine ñëw remblayer zone bi pour def usine loolu mi ngi nekk li nga xamante ne bu nit ñi jëlul seen i matukaay di ko seetaan dina dem ba zone bi dina disparaître alors que zone bi dafa am rôle bu am importance bu muy joué déjà écosystème bu fragile la am mais boo xoolee lépp lu jëm ci wàllu yi ndox yi nga xamante ne ñoom ñooy versé si banlieue yi yëpp fii lay tuuru bu fekkee donc dañuy continuer di ko remblayer di fi def ay infrastructure bu yàggee donc loolu dina indi ay problème askan bi zone Guédiawaye nañ ko protéger nañ ko protéger lu tax parce que li ñu fay jëlee ci ay ressources dafa bëri muy ci mbay bi ngay soble muy tamaate muy lépp luy horticulture li ñu fiy génnee dafa bëri am ci solo lool mais surtout tamit lu weesu loolu boo xoolee zone de Niayes dafay réguler suñu air suñu li ñuy respirer lu nekk dafa baax ci suñu santé donc war nañu ñu ñu taxaw en tant que parlementaire ñuy xeex pour que agression yi ñuy gis ci zone de ñu arrêté ko construction yi ñu wàññi leen ubbi yeneen zone yoo xam ne mën nañ fa tabax te du yàq zone de Niayes parce que lii boo ko yàqee mënutoo ko defar loo xam ne nag mënutoo ko defar da ci war a taxaw pour préserver ko loi bi nga xam ne moo créé dëkk technopole am na ba pare bu loi boobu amee ba pare dañ ko war a génnewaat ba nit ñi loi bii lii la wax ci surtout technopole bi li ñu ëppal solo mooy ànd ak maraîchers yi ànd ak société civile ñëpp ñi nga xam ne tey taxaw nañu pour préserver li nga xam ne ay jafe-jafe ci ñàkkum karange gu tara ga ñuy jànkonteel tax na askan way yëwoo ko woon wàccoon ñoom ñëpp ci mbedd mi ni doy na sëkk saa su ne sàmba boy yi dëkkee këf seen alal di leen fàdd ci teg nañ leen matalal karange gi ñoom bañu ñu sax di likkikoo ak waa takk der yi bu boobaa ñuy mën a yoole sàcc seek agresseur dinañ ci ñëwaat ak Alassane Ba ma fa féetee ñu wutali beneen gox muy diwaanu Louga kër Balla Sey foofa nag askan wa dañoo am njàqare mar la ñu dëkkee seen ndox ma we xatt xorom la ñu def moo ne sori wuñu la de guerre bi nan national Ndakaaru te njoxtu nañ ñi gën a jige gën a yey kon nañu jubli ci seen i teg caar seen école ba tànk yee jànge ndand fooy fooy la ñàkkum kaaraange gu tar lañ fay jànkonteel ñu teewloo Omar Kayre ndox mu saf xorom muy jóge ci seen forage bi jaaxal askanu Kër Balla Sëy rawatina muy forage boo xamante ni lu ëpp fukki dëkk ci ndox moomu la ñuy naan ñoom ñi nag li ñu bëgg moo di ñu branché leen ci réseau wu Lac de bi nga xam ne dafa jaar ci seen gox bi ndox mi infirmière bi fi nekk wax na ne ndox mi jigéen ñi nga xam ne la ñoo nekk en centre sax waruñu ko naan. ndox mi aussi par exemple jigéen ñi wéerul yi kuñ ci le plus souvent médecin bi leen di bindal dañuy uti ndox soit à Mbelañ benn marché bu nekk fii à vingt cinq kilomètres ah ndox mi dafa saf dafa am xorom dafa am xorom léegi même jigéen wéerul yi dañuy dem au moins ay Mbelañ la ñuy dem di yóbbante bidon wala horaire yi xëyee fii di dem Louga ci la ñuy yóbbante bidon yi Lac de mi ngi jaar ci sunu kanam jëm Ndakaaru ñëpp a ngi ciy naan ñëpp a ngi ciy naan te nun mënu cee naan lii daal noo koy ñaan yi mu dimbali ci Samba yi ndax mu am ci ndoxum Lac de Kër Balla Seye di soog a am ab collège waaye nag école boobu li mu ñàkk moo di ab mur de clôture ñàkkum courant bi yenn dëkk yi nekk ci tund Kër Balla Seye di dundee bokk na tamit ci jàmbatu askan wi am na dëkk yoo xam ne dëkk yu ndaw yoo xam ne wax dëgg àggugu ci ci dëkk bi lañ bokk leneen li ci des aussi mooy collège yi ñu am fii collège bi amagul électricité amagul mur école primaire bi aussi amagul mur. ñoom ñi nga xam ne nag ñoo ngi rafet lu liggéeyu seen maire bi di Samba te jiite SAED terewul ñuy xamle ni aajo yanu war a faj ci seen gox boobu bari na ñu mën caa lim rek goudron bi nga xam ne moom nañ bëgg ñu defal leen ko ci seen yoon woowu nga xam ne dafa dem ba Ngeer Malal Umar Kayre Louga Walfadjri Omar Kéré waa Kédougou bëgg nañu njàng mu seenu doom matale waaye te ndox mu sell mu ñu naan nee nañ dafay dugg ci gafaka ngóor ga at mu jot toll na ci juróom téeméeri million moo ne taxul saafara ya ñu gis ko ci seen i tawat teg nañ ci nag ni comité de santé ba ñu dénk poste de santé ba ambulance ba fa paanoon jaay nañu ko koppar yi nag fa mu dugg xamaguñu ko maire bi nee na ko ci sa loxo laal yet bi dina dal sa kaw ñu teewlu suñu naataangoo Soli Brahima Dabo budget municipal bu commune bu Kédougou ci atum 2017 toll na ci 801 millions 313 mille 483 francs ci suñu koppar mu di ko méngale bu daaw bu nga xamante ne daal toll na ci 747 millions 234 mille 485 francs mën nañu wax ne daal yokk nañ ci lu ëpp 54 millions Mamadou Adji Cissé maire bu Kédougou. suñu liggéey bi gis nañ ne mu ngi dem ci kanam. donc askan gi am na confiance ñun dénk nañu destiné région bi commune bi ñu ngi si liggéey ak suñu service technique ak équipe municipale bi ren budget bi toll na ci huit cent un million trois cent treize mille six cent quatre vingt quatre francs tey tey gis ngeen ne suñu budget bi euh, évolué na. boobu xaalis naam priorité bëri na waaye lu mel ni ndox mi sell wér bu yaram ak it éducation bokk na ci lu gën a itteel conseil municipal. suñu priorité mooy d'abord tey euh, permettre askan bi am ndox pour naan. permettre askan bi am ay jumtukaay pour faju wër assainissement bi santé bi ensuite éducation bi permettre xale yi am euh, salle de classe fu ñuy jàngee parce que tey tey ci biir commune bi bëri nay abri provisoire dañuy tabax ay ay ay salle de classe dañuy joxe ay fourniture scolaire dañuy jënd équipement scolaire dañuy defaraat ay écoles yoo xamante ne seen murs yi dañoo daanu. laaj nañ maire bi lu jëm ci ancienne ambulance bu ñu fii ci di si santé bu Kédougou te ñu dégg ne daal comité de na ko. mais bi ne daal bi ci yàlla àndee fi bàyyi fan léppay leer. jot nañ information euh, ñu ngi jël suñu matuwaay pour vérifier lan moo am bon lu am bu de faute am na donc nañ jël sanction yi war a def lu war a am ñun lu ñu war a def suñ côté nañ ko def administration lu mu war a def ci côté am dina ko def aussi. kii le préfet ginnaaw affaire bi da koy jëlee kaw nee dina def kenn kattanam ba am ay information yu wóor Kédougou Soli Brahma Dabo Abdoulaye Chimère Fall pour la radio télévision. Sori Brahma Dabo soxna ya nekkee mbaaw ji nañ leen ñaat téeméeri tonnes yu ñuy jàpp ci jën yu sew ruuj te ñu nappeeku ci géej gi ñu nangoo ko ci diggante Cap de Biche ak garage malien ñoom lañ ci joxoñ baaraamu tuuma ne bitim réew la ñu ko waroon a yóbbu moo tax daan na dal seen kaw am na sax ñu ci jot a téye Aziz Gueye moo nekkee ca boobu la diwaan ak suñu nattaango bu ñu fa féetal moo demoon seeti mbir ma Nazib Sagna lay wuyoo. dañ ñu informé ne am na benn site bu nekk ñun xamuñu ko woon sax te dañ fiy transformé ay produits. fii ñu taxaw nii lañ ko defee muy site bi nga xam ne Cap des Biches la di site boo xam ne ñun xamuñu ko woon. bi ñu ñëwee aussi li ñu fi fekk mooy li ngeen gis ni ay quantité jën yu am solo te benn dëppawu ci ak yoon ci seen tuutiwaay xam nga réglementation bi dafay aar géej gi daf ne nañu bàyyi gàncax gi mu màgg mu jur su ko defee ñu mën ko jariñoo tey mën ko jariñoo ëllëg malgré que ñu ngi def sensibilisation mais ba léegi am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci avenir u napp gi ci lii la fekk yàq bu ñaaw la ruslu na te dëppoowul ak réglementation réew mi ci xayma ci xayma ci quantité yi fi mu ne toll nii xam naa ne mën na cent cinquante tonnes et ce qui est dommage c' une filière essentiellement destinée à l' extérieur avec des financements extérieurs et qui font travailler nos acteurs qui détruisent nos ressources et ça c' vraiment déplorable ci wàllu politique ñii di jàppal tànk Khalifa Sall doon bëgg nag ñu dàq Ousmane Tanor mi jiite parti PS ca biti ay nataangoom ya mu bokkal parti bi te ñu nekkee ca Touba Mbacké àdduna nit ñi li leen tax a jóg seen mbiri bopp la waaye parti bi ku ci wax di nga jiital Ousmane Tanor mbaa boo waxee du safe ci ñoom ka jiite ndaw ya ñu teewlu ko Lamine Gueye lay wuyoo ca diwaanu Touba ak Mamadou Matar Sarr. ay nit ñu génn dem ci média yi di xaw ma dañ leen neexal xaw ma leen waaye promo la ñuy wut. ñooñu ñoo dem déclaré def ay déclaration def nañ ko démb à Diourbel barki démb def nañ ko ci Touba tudd woo coordination Touba te coordination Touba bi ñu nekk ñi ko jiite mu départ ci Ngañ Mbay ak Fallou Mbeng ak aram ba ak Mbayte joob ak ñun ñi ko seq ñoo ngi réunion chaque deux semaines. bu ñu demee ba ay nit wax ci turu be ci coordination bi fii leen ko weddee di xamal ne ñooñu li nu wax dara du ci dëgg ñoom bokkul ci coordination bi kon bu ñuy waxat nan wax seen bopp ca bàyyi coordination bi. ndax coordination bi tey leen gën a bokk ci benn bokk yaakaar topp ci ngañ mbay topp ci Morane Gueye mi nga xam si moo jiite département Mbacké bi topp ci Seck Seck ñun ci loolu lañ dox képp kuy dox ci leneen nag yow la concerné waaye ñun concerné wul coordination bi ñu bëgg nag ëllëg képp koy waxati na nga wax sa turu bopp mais bul wax ci turu coordination bi coordination bi daal ci Benno Bokk Yaakaar la nekk tey ci la nekk ëllëg ñooñu wax lan wax ñoom la concerné keneen ñun keneen ku ko jéggi danañ dem moom fa ñu yoon may parce que duñu fi nekk nit bi mbubboo coordination Touba bokku ci ndax réew mi réew mi yoon la képp ku tooñ am na foo war a jaar fan war a jaar dama fa jaar. xibaari bitim réew ca Roumanie la gën a fesee foofa nag ay manifesté am na ci waaye kenn ca jëwriñ ya génne na ci loxoom génn ca nguur ga Fatoumata Seye ak ki nga xamante ni nag moom mooy euh, njiital réew Mauritanie di Mohamed Ould Abdelaziz ñoom ñaar ñëpp daal nañu nag euh, yegg fi nga xamante ni moom mooy ca dëkkub Yaya Jammeh ngir daal jéem a nag waxtaan ak moom mu daal di wàccee li nga xamante ni moom mooy nguur gi bu fekkee ne nag euh, lii dee antuwul ci li nga xamante ni moom mu la waa CEDEAO kon jëloon ci ab dogal bu moytuwul ñoom it dinañu daal di nag song ji nga xamante ni moom mooy Yaya Jammeh opération militaire ouest africaine bi nag daal nañu ko door fi nga xam xamante ni moom mooy alxames gi ci fin de journée bi waaye nag dañu ko ajandi woon yoon di xaar li nga xam te ne moom mooy waxtaan yi fan lay mujjee. Donald Trump ni ki tey jii nag la daal di waat ci kanamu askanam yëpp. ñuy jéggulu ci yooyu xibaar xibaari bitim réew dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay ak Fatoumata Seye yem ak fi ñuy jeexalee xibaar yi ci Walf TV leeru jamono Cheikh Tidiane Diop moo nekkoon ci wàllu régie bi réalisation ñu doon ceeg Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke juróom-ñetti waxtu bu ñëwee Ramatoulaye ba jeen mooy ñooy yaatal ko ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf guddi gu sedd gu ñu leen koy ñaanal jàmm ak